salaatu

li ko waral nag du len luddul dul magalu tuba bi di safar bi nga xamne dessul luddul ay waxtu actu nak comme ni koy defé at bu ne ñew fi eh, ci eh, ville sainte tuba bi eh, fasiyene bok ak yeen événement bu mag bi nga xamne chaque année dañ ci def liggéey bu am solo ñu ngi fi nak ci jumaa yi Touba bi waye amna luñu fi indi tay ma and ak sama natango bi di seigne Babacar ndjay ñu am ñu ñew xol ci nan lañ ñuy waajalee euh, lii day màggalu Tuubaa bi xool euh, ci wàllum drus xasida xool ci wàllum njàngum alxuraan bi ana nan la taalibe yi di waajalee événement bu rëy bi euh, parce que tam dafa nekk benn particularité dañuy gis ay kuréel yoo xam ne dañ koy former fii wala sax ay mbokk taalibe yoo xam ne dañuy ñëw di fi jàng ay xasida di fi jàng alxuraan mu nekk lu am solo waaye itam nekk loo xam ne sëñ Babacar mu ngi nañ ne aadala ginnaaw nuyoo bi ñu ngi lay fay bu baax Alaaji Moustapha xanaa di ko wax nii comme ni nga ko waxee rek ay waxtu rek moo des ci ñu dugg ci bisu jëm jëmmi 18 safar gis neen ko ni ko mbokki taalibe yi fees nañ dell ci jumaa ji dara warul ko lu dul sargal Sëriñ Touba radiallahu anhu liggéeyam bu mag boobu bu mu defoon ci 18 safar bis boobu nga xam ne loola waroon mu jël xalimaam ne xarajtu yow ma sabti saaminal asar li xidmatil muxtaari fi safar nga xam ne bis boobu tey demam boobu moo indi xéewal gi yëpp moo tax nit ñi ñëw di ko santale yàlla suñu borom ndax moom moo woote ak sant yàlla moo tax ñëpp ñëw di sant di ko santale suñu borom waaye nan lañ koy defee loolu lu am solo mu ñu koy teg sariya ak sunna moom def na ko nan la mooy alquran ak sunna sallallahu alayhi wa sallam alquran nag moom moo ko waxal boppam ca jaawartu nee na kitaabu rabbi kaani lii wa kuntu lahu wa lillahi bi sakantu rek rek sëkk la def ci alquran ba mu tegtal ko léppam jox ko léppam comme buñ koy màggal di ko sant la yàlla dañ koy tàmbale ak alquran waaye tamit àndal ko ak xasida yi xasida yi mooy bind yi nga xam ne bind ko jagleel ko yonent bi sallallahu alayhi wa nga xam ne mooy sangam mooy royukaayam moom rek la dëgmaloon looloo tax tamit nga dégg muy ñaan ñaanam boobu waj alxilaami wa midaadi lil ila wali rasuli junnatan an kullila loolu nga xam ne ay wax yoo xam ne ay mbóot suñu borom may na ko ci biir xasida yi loolu nag moo tax tey ay waxtu rek des pour ñu màggal loolu bokk taalib yëpp daje tey fii ci biir jumaa ji di ñaan di def ay kuréel di jàng xasida di wàcc ay alxuraan pour jëmmal jëmal bis boobu noonu kon xam naa duñ def lu dul dugg xool nit ñi nan lañ koy célébrer du célébration boo xam ne bu orthodoxe la bu cosaane dëppoo yoonu murit wala tamilna biletilay wansil nafan makana durri wansil xayral makana sarri wansil ilman makana jëhli wansil juuda makana buxli wansil xinan makana yallahu ya rahmanu ya rahimu ya barru ya karimu ya asimu ighfir zunubana taqabbal minna wahmi imana wa tajawaz ana وانزل يا ربنا خير النعم مكان ما نقاف من شر النعم وابلنا الهداب والمسايا وكفنا الابات ورسايا وابلنا ارسال على تاتي وكفنا الكسل في اوقاتي يا بر يا لطيف يا معافي يا منو عمرو يا سافي نزفاغ مكان دائم ولا تملنا بليت الله وانت النفن مكان الدري وانت الخير مكان السر وانت العلم مكان الجهل وانت الجود مكان بخل وانت الخنان مكان فخر وانت سكرا مكان كفر وانت جميع المسلمين آجلا ثم ينغف النوس عاجلا ونجيهم وعافهم والتوه بهم ولا تؤاخذهم بكل ذنبهم فإنهم وإن سوك يا أحد لقبلة لم امسكوا بكاهات وانهم ابدانهم لا تقدروا لا بلاك يزوروا قلوبهم ليست تميل أبدا لا سواك من هنا إلى غدا لكنما لكنما لكنما لكنما لكنما تلصص الجوارح أفداهم الأخباء الخباء فلا تواخذهم بما لا ينسك ولهم بالذي لا ينفك. dégg ngeen kàddu صلو يوي سنجدون يكتي mi ngi doon yëkëti xasside boobu ñuy tuddee matlabu sifaay nga xam ne dara taxu ko jóg sëriñ bi mi ngi ko bind ngir rek tawat yi doomu aadama am dégg ngeen ko sëñ bi naan yaa ma yar mu daf kul daa i fala tufaarik matlabu sifaay mu leen di wax ni képp koo xam mi ngi am tawat boo xam ne mi ngi koy bëgg a jañ na koy jàng suba ak ngoon kon xam nga loolu njëriñu nit ci la waaye sëriñ bi dégg nañ kàddu yi am solo yi tey nga ñëw nii ay waxtu rek des <coughs> daanaka ci màggal gi ngeen ñëw di yëkkati ay xasida loolu noonu ni ngeen koy dundalee noonu fan ngeen ko jëlee ak ban tëslaay nga la am alhamdulilahi rabbil alamin ñu sant yàlla julli ci Seydina Muhammad waare di gërëm Sëñ Tuuba ndax lépp mooma bés bi alxuraan ak xasida la ak bernde dafa woote ne sant leen ma yàlla ci bés bii li tàmlee ci ginaar ba ci gileem lu ci waay am rek nañ ko def ci bés bi wande bés bi mboolem jànkate alxuraan yi adduna bépp ñu ngi koy waajal ndax bésam bii bés bi nag ñun mënuñu lu dul jàng alxuraan ak xasida ci bes bi ak jaamu yàlla yëpp di ko def ci bésam bii ndax Sëriñ tubaa daf ñoo defal loo xamante ni wax dëggas naa yàlla ku ne teg nga ci sa bët ba muy sonn li taxoon coono bu ne daj na ko ngir islam taxaw kenn ku ne xam na ne Sénégal mën na jiitu tey ci islam booy xool ndax gis ngeen ko nii ñëpp a ngi ñëw sàkku si tiyaabo ñëpp a ngi ñëw ngir jaayanteeg yàlla ak yoon beeg seen ci bésam ñun nag ñëw gi ñu fi ñëw danoo doon jànkati xasida te ci lii rek la ñuy dund. kon ba tey dañuy dem rek xoolaat yeneen kuréel ñi nga xam ne ñoom it ñi ngi wéyal njàng mi kuréel gi ak xasida yi ak alxuraan ñu xool ñoom it ni ñuy màggalee guddi gi. ربي بما يسره العصا نخر فجاء بجاي أفضل من لله خد لجاء ربي بما يسره العصا نخر فجاء بجاي أفضل من لله خد لجاء حمدي لرب الكريم من لا زريك الله وسري اليوم نورا ساتيا الملاء محمد صلى الله في أبد علي في حسبي كل بك الله عدوى لله إلا زل حمد مواهب لجملة الخلق ما يختار من براء joriñ jërëjëf kontaan nañ lool ci xasida yooyu nga doon yëkkati muy rabbi bi ma ashrewul dégg nañ ci bayit boobu sax nga xam ne ba am nga ko muy rabbi yaa maalikal mulki yaa man jalla an xawadin irham jami al wara yaa hadin rada loolu nga xam ne ndaw yi suñu classe gi nga xam ne Serigne Saliou lañ tombeel xel yëpp ci moom lay dem ndax moom moo ne woon jox leen ma ma ndaw ñi ma def ci li sëñ bi doon def ci mag ña kon loolu cëslaay la loo xam ne ci Serigne Saliou rek la xel yi di dem waa jëwriñ ñaw ban anam la Serigne Saliou am ci ñiy jàng xasida lépp rek parce si moom la quoi ndax boo xoolee xale li nga xam te ni ñu ngi ciy déggee ni comme mag ñi Sëñ Tuubaa si mag ñi moom la Sëñ Saaliw def si xale yi kon xale buy jàng xasaay rek mën nga jàpp ne Sëñ Saaliw moo tax loolu daal lañ si mën a jàngatee daal sëñ bi noo tudd. njaay Ndiaye. naa mm. dégg nañ kuréel gi am solo bi ngeen yëkkati tey yéen seen daara bi nu mu tudd. daara ji mi nga tudd minal xadiimi ilal mi tur li muy tekki mooy tàmbalee ci Serigne Touba wala tukkee ci Serigne Touba di delluwaat Serigne Touba. tey ñu ngi leen fekk ngeen di jàng ay xasida yëkkati ay kuréel nga xam ne ay waxtu rek moo des ñu màggal màggal gi yéen ñu fekk leen ngeen di jàng yéen loolu nan ngeen koy. ngeen koy amalee noonu. waaw amal gi de du dara lu dul am pas-pas ak jaayante suñu diggante ak Serigne Touba rek xam ne lu mu xat-xat lu mu métti métti lu yitte yi bëri bëri euh, ñun taluñ suñu boobu suñu boobu soxlawuñ ko bëgg-bëggu Serigne Touba rek lañuy ñuy ak mbégteem la ñuy te xam nañ ne xasida yi lu kawe la euh, boroomu cër la tam euh, ci ci ci nga xamante ne da koy jàng itam Serigne Touba. am na lu mu ci lu bëri ak ñi nga xamante ne dañ koy dégg itam te loolee nag dafa mel ni mooy passage bi nga xamante ne moo tax ñu jaayante ñëw ba teew tey ci xataay beeg lu mu doon ñu ci bëri jóge fu sori dëkk yu fasantikoo euh, daje fii muy dafay mel ne kuréel sax nag euh, li tax xaw a des lu bëri day mel ne dañu soog a door liggéey bi mu nekk kuréel boo xam ne la ci mais nag daara ji benn daara day daara ju yaatu joo xamante ne au niveau international la euh, muy fii ci Sénégal dëkk yëpp mën nañ am nañ fay membre bitim bi réew ak dëkku Afrique yi tam bu ci nekk am nañ ci ay membres yoo xamante ci daara ji lañ nekk dañu am xalaatu nag euh, dox doxin boo xamante ne fi ñu teg suñu bët mooy fu Hizbut Tarqiyyah egg ñu egg fa ndax xam nañ ne loolu pas-pas ak jaayante kese la te la koy maye mooy Serigne Touba kon nag am nañ gëm-gëmu na ñun dañuy romb fi ñu nekk te lu ñu ci war ci suñu poos suñu jëf danañ ko def incha allah. بما يسراه العسى نخار فجاء bijaayi afdali man lillahi xaat la jaa bokk internet yi kon yéen a ko gisandoo comme ni ñu leen ko diggee woon ñu ngi woon fii uh, ci jumaa ji uh, ginnaaw ba nga xam ne ay waxtu rek moo des ci grand magal de tubaab yi uh, gis ngeen un ni ko ndaw ñi ni ko mbokk murid yi di waajalee ci jàngum xasida yi ci gën a delloo seen bopp ci kii di Cheikh Ahmadou gis ngeen sama naataango bi sëriñ baabakar waxtaan bu am solo bi nga xam ne sekk na ko ak ñenn ci ñoom ñu ñëwaat ci lan moo tax tax ñuy waajee nii li nga xam ne mooy màggal Tuubaa bi ak mbóot yi nga xam ne moo nekk ci njàngum xasida bi ak njëriñ bi nga xam ne nekk na ci njàngum xasida bi kon sëñ baabakar yaakaar naa ni waxtaan bi am na solo yaakaar naa ni itam wàccaay bi am na solo ci grand màggal bi nga xam ne moom lañu dëgmal. lii day firndeel rek ni li sëñ Amsa tàmbale woon mu ko sëmboon ko ci premier safar bi mu ngi continuer ndokk taalibe yi di ko wéyal mooy jàng xasida bi. di ko yëkkati moo xam kuréel moo xam jàng benn benn la loolu lañ leen digtaloon tey xam naa suba dañu gën a yaatal. comme ni ñu leen ko diggee woon euh, grand magal de Touba nii lañ koy dundee euh, ñu nag yéen moo xam fii euh, ci biir réew mi moo xam ci biti réew mi dinañ fexe ba dégtal leen lépp loo xam ne solo la lépp loo xam ne njëriñ la ngeen mun ko jëriñoo ci événement bu mag bu rëy bi nga xam ne mooy grand magal de Touba yéen ak waa Dakar Actu. duralla jay xëri alamin akrami suma biyum ni ramadan asmi yallahu ya rahmanu ya rahimu ya barru ya karimu ya asimu ighfir zunubana taqabbal minna wahmi imana wa tajawaz ana wanzil ya rabbana khairan ni'am مكان ما صلاة الذي في كل زار وفي سفر حماني على ما هم مع الحس والسفر